ci pencum député yi ñu ciy sant yàlla bu baax euh, liggéey nag dafa jot defar suñu réew dafa jot waxtaan ak suñu askan dafa jot xam ñooy kanit dafa jot li di sëñ Diouf wax moom laay mottali réew bala nga koo mën a xeexal wala nga koy défendre da xam yow yaay kan ba noppi ñun ñooy kan mooy nasaraan si dafay ñëwoon fekk fi ay bañkat ñu xeex ak ñoom mënuñ ci ñoom dara ñu cëslaay fi loo xamante ne nii nasaxal rek lay tudd mooy lii fi xew mille neuf cent ba léegi samp fi ay kuréel yu ñu amalul benn njariñ samp fi politique boo xamante ne nii yàq yàq jikko yàq aw askan delteel ab dina dëkk am réew ginnaaw moo fi ne loolu nag comme que cëslaa yi dafa des léegi xam nga lan mooy slogan bi politique autrement politique autrement mooy patriotisme kenn jiit ci waa Touba Pastef kenn jiitu ci waa Touba te nag maa ngi leen di rappeler leen Sénégal dafa bokk ci dëkk yi nga xam ñoo ëpp jeune ci àdduna bi rawatina nag Touba kon ñun lan mooy suñu rôle ñun kilifa yi ñu tuddee magi Pastef mooy encadrer suñu jeune xamal leen seen bopp taxawu leen te taxawu Ousmane Sonko suñ ko defee réew mi kenn mënul teeba du dem ndax kat fulla mooy jaay Dakar su ñu xoolee ni ñu encadré Ousmane Sonko ak pas-pas biñ ci am kenn ku koy xañamal du am kenn kuy am fit li ko laal du am kenn koo xam dina ko jéem a tardel ci programme bi du am ngir pas-pas bi koy wër a tax loolu nag du toog bi seetaan ak ay ay ni ko sëñ bi ko soxna si waxee ak ay action la laaj action bi ci njëkk jëf mooy ñoom dañ doon créer yàpp wuy tax ñuy nësaxal réew mi léegi nag dañoo créer ay carte carte yooyu li mu laaj dañoo war a futteeku nag su la ajee commission boo xam ne dañoo war a dem ci yoon ñu dem ak ñoom ci yoon ndax bi ñu yoree population bu jeune mu ëpp ci Sénégal mbooleem loo fi xool ci jeune ay non votant lañ teguñu ko fen loolu dañ koo war a xeex dañ koo war a xeex dañ koo war a xeex ba xale yëpp am kayit dañ koo war a xeex ndax ay sénégalais lañ suñuy milliards lañ jël investir ko ci ay carte dante yoo xam teguwul fen ñu def ko ci tappale loolu lañ fi war a dind politique autrement nag du Ousmane Sonko dom gépp la war ma ne la képp koo xam ne Sénégal dalaa ñor Pastef nga bokk yaa xam APR sax nga bindu maaye Pastef nga bokk ndax Pastef mooy doomu aadama képp ku amul Pastef doo def dara ci kaw suuf jërë ngeen jëf wasalaam sax coro di ko fekk fekk li nga am ni sa yaram moo la ko may ak sa dal waaye mbir yëngu woon na bu baax a baax yow nga toog li Serigne Saliou nag moo lay yar dal ga dal ga fekk fekk ma lay wax ñun dañoo am escalier damay dégg ñu wax Sonko Sonko sànq ba tey dafa am base bu ñu am muy Touba noonu la ñuy wax man man je parle suñu secteur kon nañ tàmbalee si escalier bi mm-hmm. jëm koo dooleel ndax suñu borom dafa am nu mu ko buddee muy jikko sàng la te ñun nag ñun nag dañoo yor jikko sang sang yar ñu ñu yor jikko ceddoo ñu war koo protéger si loolu aar ko ci ndax li mu mel xam nañ ko am loxo na mënu ko ñun nag ñu ngi nekkoon ci benn komba boo tax xëy na mënuñu woon feeñ ci fu bari yoo xam ne sëriñ bañ ma ko defal muy ndox Tuuba muy loo xam ne foofu laay duggee tey metti na trop te loolu ci xeex Sëriñ Tuuba ci la bokk ñun xam nañ ci dara moo tax ñu nekkoon ci liggéey boobu ba tey ba tax na mënuñu woon positionné wu ci yenn yi mm-hmm. waaye ñu ngi doon suñu liggéey suuf ñu ngi doon déggante ci moom ma bëgg ñu xam dara Fatma Mbodj lii ko waxoon Fatma Mbodj loolu laa la yóbbante carton rouge la ngay yox tey ndax tey jii kenn war na fa jiitu ndax soxna yaa ngi ne toog honorable bi ngi toog sa lay boo mënte am mënuñu koo nangu da ngaa waroon teel ñëw ndax fii waxante dëgg moo tax ñu ñu mën a dem Sonko da ko wax fii ci Mbàkke boo leen jàppee xëccoo ak ak xiiroo ŋaayoo moo leen jox mu mooy tax mooy daaneel Macky Sall keroog bi mu koy wax dëgg la wax keroog maa ngi toog ay jeune di ko nett ne keroog lañ jàpp Sonko xam ne bu nekk ci bi dañuy waxante dëgg mënuñoo nekk suñu biir di raayante jàpp ne loolu mooy daaneel Macky Sall loolu da ko daaneel ndax koo xam ne ba mu demee États-Unis dafa réer Macron moo moo ko gënde kooku xamatu fu muy taxaw kon nañ xam ne am na fu ñu dafa réer bopp bi li ci nekk lépp Sonko rek ci nekk leneen keneen nekku ci affaire bi raxut Sonko jëluwul ñeneen ñeneen raxuñu ko Sonko daa bëgg dimbali ñooñu fin tubaab noonu la fi nekk woon ànd ak tubaab bi Sonko ñii mu àndal tey taxawaay boobu la taxaw Sëñ Cheikh Saliou du du tëyantu du jàppantu di ci xew lépp nag mënu ma ko wax si micro ndax ñu ngi ci biir mu si waaye seen géej su ma ko jundee rek ñu bëri xam nañ xeex la boo xam ne ci kanam la nekk saayir moom waxatuñ ko baatin moom loolu dañ koy laf fële ci kanam na nekk nañ dooleel kii jëmm ji toog suñu sax mooy dëgg mooy fulla ak soxna fan mbuuj mais yóbbante bi nag yóbbante nañ ko li mu ko mën a ratifier mooy ñu laaj ñu la xaalis laaj ñu la moyen li la laaj su le terrain ndox Touba bi taxaw solo def ci slogan bu leer nañ ñu dëgg ko parce que population sonn nañ te war nga def conférence spéciale pour ndoxu Touba man loolu mooy rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu te di leen siara tay jital ci neew bi suñu kilifa gi tok ndax jataayab mourid sa su fuk sant Mbàkke nekkee moy kilifa ko kon nak serigne touba lañ lay xolé mom lañ lay jappé fi nga togit serigne touba lañ japp ne mo nu fi togal kon nak no ngi ñaan suñu jotaay bi yalla na ci serigne touba dugal loxom ba fañ bëgg mu àgg suñu borom àggale ko samay wax nag man ci ñett laa koy jëmee ndax ñett fi ne muy mag ñi gone yi ak njiit yi mu sëriñ bi mag ñi yàllaa leen def mag defuñ ko seen bopp loola yàlla def nag da koy téye te mag moo séen am ñag la ab ñag su bëggee la muy ñag du ruur day gën a ñagas ñag ba muy ñag su ko gënee rattax la muy ñag dana jaay kon nun mag ñii noo war a jàppale gone yi te xam ne kat li des suñ dund gii dañ koo war a jaamoo yàlla waaye li ci ëpp mooy jàppale gone yi ñu taxawal li Sëriñ Tuubaa bëgg ci dëkkam bii ndax réew mii kat ay gone ko moom léegi képp kuy mag digle nga am ak tere waaye amutoo ci leneen ndax mënoo jëf amoo wërsëg kon digle ak tere képp nga ci des lii firnde ji mooy sëñ Cheikh Thioro mi toog di sunub sëriñ bu doon ne mag rekk la fii mu toog du fi toog su doon ne juddu kese la am nañu sant Mbàkke ni moom te tooguñu fi waaye moom li ma koy jëkk jëkk jëkk wax mooy juróom juróomi faa yi nga xam ne moo ne ci pal bul ko fàtte suñ la falee di la fay ña la leen bu folli jotee ñu folli la muy juróomi faay yi jàpp naa ne nag sab liggéey war naa yomb waaye jafe na lan mooy war naa yomb waaye jafe na mooy li ko war a tax yomb mooy dafa am ñoo fi fekk nga gis nañ doon doxe ba tax ñëpp bayi leen nga teg ci sa bët su fekkee da dem ci garage ba war a dem dakaar nag am paas dugg ci oto mu jëm Dakar yàlla mën na laa dimbali nga àgg waaye client yi nga bokkoon oto bi bu leen fàtte mooy Minita Pesti fii da leen bàyyi xel bul nangu kenn ku wéet ak yow di la wutal ab noon soo ko defee li nga bëgg du ko am ndax mbooloo ñoo dajaloo tegle fii nga ne kon ku wéet ak yow naa la diw da laa bañ bu ko nangu bul ko nangu du la àggale fi nga jëm. te noonu danoo bëgg ci kàttanu suñu boroom Touba gii soppee ba sëñ Touba gis ne ñi fi dëkk kat sëñ Touba liggéeyal nañ ba ñu war a jot seen wàll ci réew te bokk nga ci yaakaar yi ndax ndaw nga te Touba kat am na cër bu ñu la sédd boo xam ne soo ci bàyyee xel jàpp naa ne foo bëgg àgg suñ borom dana la fa àggale su ko defee ñun mag ñi nag nañ den ak ndaw yi. di leen wan adduna di leen wan ne lu ne mën nañ ko am di leen wan ne leen nañ gëm seen bopp te xam ne liggéey am fulla am jom am pas-pas am bëgg-bëgg képp moo may Sëñ Tuubaa li ma kon gone yi nañ leen di wan sëñ Cheikh Thioro bii ndaw la te gëm boppam am pas-pas ne ci dëgg nangoo liggéey xam ne yàlla may moye mu wut yàlla jaarale ko ci loxoy nit ñi ndax nit kenn moomu leen ko du yàlla mi leen bind képp kenn moomu leen mën nañ laa gëm nag mën nañ laa topp mën nañ laa yaakaar mën nañee ànd ak yow waaye bu dara disul lu moom moom ñu bàyyi la fa dem ci yàlla kon sëñ bi am nañ yaakaar ci yow wér te jàpp naa ne yaakaar ji sun borom du ko des Ousmane Sonko nag am na sens mm. ndax li tax mu am sens mooy dafa fekk Touba gii yàlla defutu fi njiit loo xam ne gëm nañ leen ci àdduna ndax ñi fi jëkk lañ doon wax ak lii xew da bokkut man yàlla def na nekk naa ci PDS fanweeri at dawal na la député ab sénateur juróomi at maa nekkoon conseil spécial jóge na maa moom ndakaaru di xulóog moom bak si Touba bi ñu ak see secrétaire am na ma yow loola dal ma ne ko lu xew mu ne ma oto bu mel nii buñ kilim di la fay ngay xulo patron bi la ko jox man ko man deug la gëm gëwuma auto gëwuma kilim ciabi mom booleeg yéen mun leen a dawal ba dib sefor ngeen jox ma seen ciabi ma leen di dawal lima wax bu leen neexut lañ leen ma seen ciabi ma jox leen ko sama wërseug mu leen ko jël man deug la gëm waye lima ma wat ci yalla Abdoulaye Wade mom population bi ñoko fu kum fi tek nak ngay ab député wala leneen ci coobareem la la tek wala ministère wala directeur société mo la fal ñun ñu ñooñu mënuñ leen a folli waaye buñ follee Abdoulaye Wade mi leen jiite yéen da ngeen fi jóge am déet ku folli président mboolem ñu folloon te neexu la da ngeen fi jóge ab responsable day mooy jël téléphone am teg ci noppam di bañ a wax ak militant bul xeeb kenn bul tayal xeeb ak tayal lu yàq lu bëri moo ko yàq bul nangu mukk kenn di wéet ak yow di la wax loo xam ne am na ñoo xam ne bu ñuy ñëw mu noppi Bulan bul nangu koy ànd ak yow di wax ca kaw di wax ca suuf bul xeb kenn ku ñew deglu ko lam wax yaar rek la lay mëna jariñ da lay wax lu lay jariñ nga def ko wala mu wax la lo xamne soko defé loru nga bañ ko def di kera ba ma demee wax ko sama rak la mu ne ma bëggutuma jité département bi ak safoor yi mu ne ko sañoo bañ bu fekk ni ñang koy bëgg ba légui waye na nga xamne dañ lay jital da ko fi dawal mago fi gëno fi yalla dogal ñu jiital la ndax seigne touba ci boppam cir yi mu yor mënu ko yoral bopam ay nit la koy jox kon yow mi ne yalla denk na la ab cir ci touba gi na nga xamne seigne touba nga ko yoral te njabot gep seigne touba la ñu kon nak seigne Cheikh noo ngi ci sa gannaaw noo ngi dekk nak kanka keur seigne Aliou Ka bi seigne Moudou Moussa fondement jumaa ji ci ndigalal seigne bakki Buso añ bañ dëkk togg sama mama ko togg yóbbu ko ci jumaa ja añ booba da ko wéyal aljuma ji jot 1963 bañ julli aljuma ci seigne Moussa Ka juroom ñaari penc kànk yëpp la ko seigne Fallou Mbacké joxoon mo leen doon coordonner sa suñ xëyee aljuma sama kër maam lañu jaar ndékki dem ci jumaaji jo buñ añee ba nopi dooro a wàññeeku ñëw naan ka fi jibi kon ci dëkk bi la dëkk dañ la jappalé dañ la ñaaral it nag ñaar yiñ man dal dañ ko def dañ la wax li nga xam ci suñ xalaat bu rafet dañ la ñaanal dañ la jappalé bu soobé suñ tuba wax fee ma nekk nag moom kenn nekku fa kenn nekk gu fa ndax gisuñ kenn kuñ gëm te gëm naa ne yow soo ñëwee dañ la gëm ndax dégg naa wax ja te dégg naa nañuy waxe ñëpp fi mu ne amaguñ kilifa waaye gis nañ ne Ousmane sonk ci boppam liñ dégg ci moom ndax gis nga nit doo ko atte ci wax ci jëf nga koy atte dama ne la mbooleem politique yi Sénégal yi 1960 ba léegi kenn ku mas a yor keesu état yor ko ba jóge fa yëkkati sa loxo ne état maa ngi seet ma kenn mësu ko ñeme koo def ñu tëj la ku ko def ñu tëj ñëpp nag laa wax président ba cib juuti ku ko ji def ñu tëj la kon sëñ bi tegal foofu sa tànk kon nag noo ngi siyaare mag ngi fekk ñëpp te jéggalu kaddu yi ndax wóorul ndax ay sëñ kilifa rek lañ fekk waaye noo ngi ñaan na ci doole borom Tuubaa ndaje mi nay am dañuy waxante dëgg tafas ko yéere jëf barke sëñ Tuubaa jërëjëf